lii ma ci gën a neex mooy lii ma ci gën a rey mooy lii ma ci gën a saf mooy ku nekk sa salañ salañ ku nekk sa jëfar jëf ma ni ku nekk avec côté tout est possible mais tey gis nga fi du pël la lii la mu tudd toj fi kon tey nga ñuy doon mais de eh, gun gun ku gun gun gun gun gun gun daj. gun gun gun gun daj. kay rabax rabax te rabax gi daj. gun gun day ànd ak toog. <laughs> non yéen fi ngeen jënd neex na. mais fi ma jënd moom. ma jënd. yow moom ñiin nga ba. li mooy moom Fouchard. ah moo Fouchard. moo Fouchard. waaw Fouchard. Fouchard non def ngeen ba mu ris moom gis. jëy sama gars mais mais je te fais du grand waaye xam ngeen ne fii la buujoo nag. mais nag li nga wax ba mu tudd. pote xew bi. ris pote et le stockage. léegi damay calmer comprimé la. <laughs> dégg nga nag moo war a am reeju neex jooy accueillir client waaw reeju charmant yu nooy sax waaw ah, ama parfois fii ay doyen dañ fi dugg parfois nga raay leen fëgg nii olo olo réewu sowal la ak waa Espagne ak waaw waaw waaw réewu ministre xoolal réewu ministre yi xam nga ministre su leen Ablaye Wade woowee des fois neex li mu leen wax mais xam nga ni <laughs> yéen a ngi def. mais je te fais du grand amour. fii bu joo. xelil ñu si lii. man xelil ma ci bisaa bu ci jus buy te ko. Dakar jam tamare man. waaw mais Pelé ci loo ne. Ah? ci loo ne. nekkuma ci leen loolu nama leen mais da ngeen mën na naxe. non ci lan noonu ci lan. jaaru ñàkk njëriñ gi ngeen fi jaarama metti. non non non peut-être xam du ma ko naan du ma ko naan tamare laay naan du ma ko naan. je ne vais pas je ne vais pas le boire tamarin. loo bëgg rek waaw waaw tax ma ko la xam nga tey la moo ñu dal. dem rëbb sooy. dañoo sooy. dañoo sooy. dañoo sooy. dërëm yoruñu ko. billaahi bu leen ma wax loolu. waaw yow ñu ngi nii toog. ah waaye kon li ngeen di naan fu muy jëm. affaire boobu métti sax non non kii da nga koy da nga koy def reliquat rek. Ah. aj ko fi ñu ko ajoon rek. mais yéen a ngi defar ba mu tëb. ba mu tëb. mais fi mu ne nii daal dil bi fi xew sama gars yi. waaw. dil boo xamante ne. pote. dil ci kaw dil. poté ah. bu dul dilu xaalis bu ñu ko wax. ma yow man xam ngeen ma ñàkkee noonu bopp. waaw kon aja ma wax lu amul njariñ. ñëwal kon. man may daqaar bu ma daanoo am njariñ. kon ñëwal. xale bi ma romb ci mbedd mi. waaw la jóge tuuti ngeen fekk ko fi. Hmm. tilim gi mu tilim. taq gi mu taq. ñëw sànq naan ma nii ba di Youssou Ndour la bëgg a gis ñaari fan am naa. dem sànq dem seeti Youssou Ndour déglul day gën a gaaw Tamba la jóge man du ko wax ci noonu. def na fi ñaari fan. rien que pour bëgg a teg Youssou Ndour bët. mais na dem na dem kër. mais te de yéen a ne mën ngeen a dil lu ne. waaw waaw fi mu ne Youssou la bëgg a gis. fi mu ne bëggul lu dul nit ñi yóbbu ko ca Youssou. man dil amul xaalis non dafa ay fan yooyu yëpp fa même dañoo baax de. non Kader dafal naa ko loolu mën naa jur xaalis. yow imagine tey ma doom maa di Dramé yow nga doon nga doon pour la nga doon <laughs> na ne de. mais loolu mën nekk. mais yow pulo yooyul de pulo naan soow ba taxaw. mais mais ci koor la ñu nekk waaye côté ci koor la ah, a jeex. léegi fu nekk bi dem fa nag jug dal leen. waaw xale yi daal du yàgg dara xam naa dinañ fi jaaraat dañoo sangu ji. xale yaa nga mel ni. je vais ngeen na ngeen def. ay yow son yërëm naa leen nag de. ah gis nga xam nga Youssou jaral nañu ko. ndeysaan xale bi de moom mi ngi jeex xanaa perte nga 12 kilos toogal. ça va ça va ci lu ngeen nekk. ñoo ngi nii rek ñu ci la nii ba tey. ah yàlla ah, baax na soor leen ma ne sama place bi fi la ñëpp yi teer. Mhm. mën naa am bala ngeen a lekk bay dem. nga gis léegi ku ñëw. waaye nag am naa yaakaar trop ci yéen. Mhm. am naa yaakaar ci yéen. yàlla baax na. xam naa war ngeen a xiif ma defaral leen ngeen lekk. waaw man loo am tey. ah tey moom ceebu jën bu xonk cur laa togg. ah déet maman ah maman yow tamit li nga jeex dina yokk di ah ci yërëm naa na allo Bouba Ndour ça va def waaw mais euh, Bouba Bouba defal naa ko man maa la woo quoi waxal ma njaga suba bu mu xëy TFM na dem directement Sorano ok waaw na dem direct Sorano pour les derniers réglages quoi. ok xam nga lendemain korité dafa war a def spécial korité ba mu saf waaw pour la mi ngi nii toog mi ngi ñëw si Ngóone Ndour léegi ne ko bu mu génn pour loo ngi ñëw mu jox ko 500000 pour man non Youssou Ndour bu mu bu mu génn na tëdd na bu mu recevoir kenn. na tëdd parce que spécial korité bi ku. Euh, voilà dafay revenir en force quoi. Mhm. ok merci Bouba. Et puis salue-moi papi, euh, Philippe, ah. Philippe de ma part, hein? ok. Ok. Bouba la xanaa. Bouba Ndour la. ah ma ko woon wax mu canaliser euh, Boy Jaga quoi xam nga Jaga. oui. mën naa la kii poser benn question. avec une très grande plaisir. d'accord juste sama copine bi dafa ñëw. Youssou Ndour rek moo ko fi indi mi ngi jógee ba Tamba. ah ok démb ba tey mi ngi fi. tu as fait des kilomètres donc. Youssou euh, Ndour waaw dafa fi mu jógee dafa sori. Mm, bon gis Youssou si si si si yan amin. si yan anam quoi yan anam. xam nga maanaam booy gis nit di nga xam di nga xam si yan anam nga koy seetee. koo bëgg boo duggee sama néeg dangay gis poster Youssou Ndour yi moo ko ràññee. waaw loo koy gis ko pour wax ko lan Youssou Ndour lañ may wax ndax dama bëgg Youssou Ndour. pour wax ko lan. da laa way wala dafa way say maam. wala un de tes descendants. yi mu fi def dëgg ko rek. Ah. mais mën naa ko bëgg a remercier ndax Youssou Ndour lu mu def Sénégal. comme lan comme lan explique toi. ah mais bien sûr. ah lan ak lan. non non non bul jooy nag sa aajo faju na. léegi non léegi xam nga lan la. sa aajo faju na. te mu xam fii. non du xam parce que. pulóo ni la ko yóbbu kër Youssou Ndour. dama ne Youssou nga toog. Ah. waaw man maa mën a jëloon. Ah. léegi léegi nag xam nga lan la ñuy def. man Youssou audience am 30 000 laa koy laajee. mais yéen comme que da ngeen a jógee ba Tamba 15 000 laa koy defaree. non te 15 000 sax pour pour chauffeur bi la mu jënd essence. donc ok léegi bàyyi ñu terminer lii. après ñu daal di dem ah. waaw yéen seen tey dafa caramélisé ah. kii moom fan si dëgg la quoi. tu aimes beaucoup Youssou Ndour ah. Pouls. Euh, non defal nañ ko bii jeex na quoi. bii jeex na. ku ko bëgg fekk na ko fekk cosaan waaye tamit waaye bàyyi bii Sénégal dañuy kemande quoi. maa ngi Dramé. Sénégal yaa il kemande man la man la Bouba Ndour de. Poulo. Poulo. yow yaay Dramé. Assane Gueye. yow yaay Poulo. non Kader Diop. nga def léegi yaay Poulo. non déggoo ko yow yaa wax léegi yaay Poulo. bon déjà avant tout. Eh, eh. déjà yow avant tout delloo xaalis jàmm. da ngaa jël xaalis yu ah, ñuy bu dee yow yaay Poulo. yow li wax léegi yow yaay Poulo yow. wàññi client rek escroc. mais yéen ah. yéen yéen ay escroc ngeen. tey xam naa dama jeex ci weeru koor. yow eh, non. yow yow xool nga sa bopp. Pulo. waaw. Kader. bon. ñii moom teg leen dóor leen torturer leen. sànq la yow kay bu war a sa xol sa li s'appelle location. am nga déjà ñu ngi toog di jëw. kii naan mooy Madi Dramé kii naan mooy Pulo yow nga ñëw yem teg sa bopp kenn expliqué wu. yaa ngi teg sa bopp ànd ak biir gàjjee ba sa xol sedd. doy na waay tey laay doogoon naaw. sama sama sama ñaari plat ceeb bi ah dafa am benn gan. waaw ok. ma kàlla laa tudd. yow yaa ngi leen yow yaa ngi leen yow yaa ngi leen yow yaa ngi leen yow yaa ngi ale pulo ale be <laughs> boy yow yaay pulo safaru yusuf kader be ah, boy bu ma taxaw fi lu ma dégg yaay pulo yow <laughs> ale pulo maa drame be maa di yow barki dem concert yusuf bi woon fële it en Italie la xaw ma France te après yusuf mujj dem Amérique laa ñu jox ko foofu kii boobu affaire bu ñu joxoon yusuf Amérique lan la affaire sage-femme bi pour xeex sibiru yi la. affaire sage-femme la jox yu dur. Ah, pour xeex sibiru yi. kooku la booy. dara pour xeex sibiru bi la mais booy yéen jarul di ree ko mais ñu manqué ngeen. ba ah, avec votre personnalité avec votre dignité ah. avec mais yéen mais yéen ñu mel ne yéen genre yu mel ni nan lañ leen mën a di tegee dil wala di leen tromper wala di leen nax. xam rek xam boo bëggee rek dangay gumba taxlu lu ñu wax rek ak kabu TFM bi kab e kii subal kab bi booy foo jëlee kabu TFM bi. ah booy dikkoon roofoo Thiès daal ñoo la ko may yow tim nga sol kab bi rek di wër TFM TFM TFM xam nga yéen yéen yàq deru gaay yi TFM quoi yéen di wër dem leer dama di dangeen di jël xaalisu jàmbur naan ay mën naa leen a ay Dakar na door pa mën naa leen a indil ay waa roofoo mën naa leen a ay bu ngeen bëggee gis Youssou Ndour comme baat ak tontu la di yàq deru waa TFM surtout deru caméraman yi ndax TFM da ngay dem sax biir TFM barki dem maa ngi monté ci porte bi dégg fa problème bu rëy ah ci caméraman bu buñ ne bu dem engagé na mën naa indi équipe bu Dakar na door paa ñu jox ko xaalis bu tëdd ca lekk ko xam nga kon yére teg dil yooyu yére war teg dil yooyu yére def yooya mais attention pote pote sa place bi pote place bi danaa ko tëj pote à chaque fois pote les mêmes faits à chaque fois pote les mêmes problèmes à chaque fois pote les mêmes gens à chaque fois pote les mêmes beau à chaque fois poté lem. mais poté ki ñu tuddee tërëdi rek. li ñu naan jikko di nga ko jël ci sa turandoo. ñaan bu sotti sonal bu la prochaine fois je vais fermer place. dootuma ko def. est bien clair. très clair. eh booy yow jugalee booy. xawala dem ak sa kaf yi di mel na bale douce fan yële yàggul dara daje ren fi nga yaa dooroon aatu. dara am lu ma expliqué woon dafa ne woon naa danga nekk nit booy boo ma gisee danga baal ma la mais la prochaine fois booy xoole la ma waroon aatu dinaa la ko wan la ma defoon aatu dinaa la ko def danga baal ma la allez door loolu ñu dem ma wax door waay sa kos sa kos si bii di ma laab oo oh. ah costume day gudd tuuti wàcc nekk booy bi costume bi gannaaw na ah. yaasa lay niróo bi nag comme yaasa. c'est tët tët tët mais yéen attention ah. mais madame attention. mais yéen gis ngeen ma man. Mhm. du may ñëw fii kan laa buba lu mu bokk ak Youssou Ndour. buba lu mu bokk ak Ndiaga Ndour. buba lu mu bokk ak Ngoné Ndour. buba lu mu bokk ak Ibou Ndour. kon xam ngeen ni booba ça fait partie de la famille Ndour. Mm-hmm. di ko jege Youssou Ndour. très bon. kan moo ànd ak moom taxaw fii. yow kon yéen bu ma nee leen mën naa leen yóbbu ci Youssou Ndour yéen gis ko da ngeen ko gëmal du ngeen ko gëm yéen. waxkatu dëgg baa ngi. ameewul fii de ma wuy war ngeen a a gis yu de. ah loolu de lañ bëgg. loolu de lañ bëgg moom yow de di nga la porte est ouverte. Ah. voilà loolu xolal. yaa seet heure ba nga ko bëggee ak naa bi jamono bi ni nga ko bëggee ak waxtu ba nga ko bëggee rek. da koy dox de. nga daal gis yu yu xolal eh. yu man maay bras droit maay garde corps yu fu mën dem ci àdduna xolal maa ne ci wetam brigadier père. loolu dëgg la. xoolal ren maa tax mu ren ren ji man maa tax mu annulé Bercy ndax maa ne ko sécurité ba fa ne doyul te baaxul ko bàyyil ma dem Bercy xool sécurité ba xam doy na wala doyul xoolal ci ma vol ma dem ma demee xool ne ko yiw mu ne ma per ma ne ko sécurité ba doyul yow mu ma famm naa ko ma déwén per. wax na dëgg te Youssou. Eh, per mii moo ko gënal Bercy fi mu ne perey Bercy am kon nag boo tëddee nelawal te xam ne dina la fa yóbbu. lépp lu ci mënti doon daal xolal eh te de yaa ngi sama nëmba kool yow.